jërë ngeen jëf euh, mbokk yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci rajo réew mi FM 97.5 euh, mbokk ñu dellu am mbégte dellu siwaat euh, ci seen émission pencum réew mi muy émission boo xam ne samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h ñu ànd seeg yéen ngeen di si ànd ak Abdou Khadre Seck Mamadou Diawo Diallo moo nekk ci wàllu machine bi mbokk yi tey ñu invité Lamine Bara Gaye mu nekk responsable politique APR ci Mbacké. Euh, bokk tamit ci cadre APR yi waaye tamit mu nekk directeur général bu euh, service national de l'éducation de l'information pour la santé ci ministère bi ñu dénk wàllum wér-gu-yaram gi euh, moom la ñu invité tey fas yéene waxtaan ak moom lu jëm ci wàllum politique actualité benn Bokk Yaakaar Yewwi Askan Wi rassemblement yi danañu ko daal di waxtaanee waaye tamit kër gi di si def na fi benn at dina dinañu waxtaanee loolu tamit Lamine Bara Gaye ñoo ngi lay nuyu. waaw Abdou Khader maa ngi lay nuyu bu baax nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi déglu réew mi FM ci waxtu yi ci Sénégal ak ci bitim réew di nuyu ñëpp ñuy liggéey ci rajo bi di di nuyu également suñu grand frère ami Mbagnick Diop di la jottali également nuyo tout le personnel du SNEPS ak euh, le ministre de la santé et de l'action sociale di sargal suñu grand frère et ami Abdoulaye Diouf Sarr di dalal bu baax tamit docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye. nga xam ne tey jii moom la président de la république wóolu jox ko liggéey bi muy suñu njiit ci ministère de la santé ñu fas ko yéene jàppale ci liggéey bi. d'accord euh, Lamine Bara danañu dikk ci. Euh, euh, Marie Khemesse ngoom Ndiaye moom ak kër gi nga xam ne mooy service national de l'éducation de l'information pour la santé def nga fi benn at ñu commencé nag ci li nga xam ne mooy élection législative yi ak seegul waaye tension bi fi mu ne nii yéeg na waaye question bi ñuy commencé dafa nekk benn laaj boo xam ne euh, benn euh, monseigneur ci euh, Popenguine moo ko laaj benn abbé mu wax ne dafa gis ne coalition yu bari dañu am problème mu liste mu ne liste yi dañoo naqaree defar ba kenn mënu koo defar waaw wala déet yow lan moo tax bennoo di am problème mu ak yeewi di am problème mu waaw xam nga délai yi pour ñu doon defar liste yi xaw na jegente lool euh, li ci am solo nag mooy effectivement te liste yi tamit il fallait que ñu def ko parité te liste yi tamit ñu ci bëri ay coalition lañu xam nga coalition parti yu bëri ñooy daje di ko def xam naa loolu bokk na ci jafe-jafe yi ak délai yu gàtt yi ba nga xam ne gars yi def nañ ci ay erreur waaye nag comme loi bi moom nee na liste bu respecté wul parité bi dañu lay rejeté ah loolu moo tax mu am ay rejet léegi nag euh, am na ñu mu dal ci opposition bi comme ñun tamit dal nañu. waaye euh, mais yéen ñi nga xam ne yéenay Benno Bokk Yaakaar nan la leen euh, bañ a respecter parité euh, mën a dale waaw loolu xam nga moom liggéeyu mandataire bi la mais comme li ma la wax rek délai yi xam naa ne gàttoon na. Euh, bu xante bi metti woon na foofu ci au niveau du service des élections mais lu ci mën di am mooy erreur la erreur nag xam nga ku nekk lay dal waaye li am solo mooy appliqué nañu loi bi te jàpp naa ne suñu ba Benoît Sambou dana war a góorgóorluwaat pour que bu ëllëgatee li ko dal nii dootu ko dal. waaw ah, mais mais mais régime bu sérieux régime bu bu bu sérieux élection yi enjeu yi nga xamante ne moom la am euh, moins de 60 personnes mënuloo respecter parité banaan erreur. loolu euh, est-ce que du catastrophe aussi. ah non du du du catastrophe erreur matériel la ni mu dalee ba Benoît Sambou noonu la dalee Déthié Fall noonu la dalee également yeneen mandataires yi mais loi bi dal na ci seen kaw xam naa ne la prochaine fois également kilifa gi wax na ak moom bu ëllëgatee dana góorlu pour déposer ay liste yoo xam ne du am ay erreur. waa mais euh, li ñu gis tamit mooy euh, conseil constitutionnel dafa wax ne benn Bokk Yaakaar seen titulaire yi mooy dem Yewwi seen suppléants yi loolu mu mel ni. Euh, ñenn ñi ne nañ c'est la première fois ñu gis ko ci euh, élection bu Sénégal. waaw xam nga conseil constitutionnel moom mooy tribunal bi mujj ci suñu sartu réew te noonu ñu ko ci waxee ci tubaab ces décisions s'imposent à toutes les autorités politiques comme administratives léegi nag conseil constitutionnel jël na décision kenn mënatu ci def leneen parce que amut amul recours. léegi moom ñun suñ liste proportionnelle euh, suñ liste suppléant éliminé nañ ko yow seen list majoritaire supprimé nañ ko titulaire loolu moo fi nekk léegi nag dañuy dem élection ak kenn ku nekk li nga dese. d'accord léegi euh, Lamine Bara Gaye euh, il faut que ma poser la question bi élection locale yi passé coalition Yewwi Askan Wi ci Kédougou yaa ngi may dégg coalition Yewwi Askan Wi ci Kédougou élection locale yi passé seen titulaire yi baaxoon na. mais seen suppléants yi moo baaxutoon ndax dañu leen a laaj 16 ñu onze 11 euh, ñu ne leen cour d'appel bu dakaar na leen yéen coalition Yewwi mënu leen a dem ci élection yi ndax seen suppléants yi moo baaxul lan moo tax kon bennoo bi suppléants yi baaxul waxuñu ko mënoo dem ci élection yi. waaw ah, xam nga loolu bokkul ñaari tribunal yi bokkul fële ay cour d'appel la woon fii nag conseil constitutionnel comme ni ma la ko waxee. mooy tribunal bi mujj. mais si code électoral waaw loolu nag man mënuma ci jël ab li ma mën a xam daal mooy jii fi ñu toll nii moom ay dépôt liste ak parité moom romb nañ ko xam nga fan lañ jëm dem élection rek. pare ngeen. dem élection non ku pare wuti sa affaire la mais mënuñoo ñàkk a pare il faut ñu dem campagne yi même opposition bi dégg nga bi ñu jëlee parole dégg nga déglu naa ko fa ci seen débat nee na bu ngeen demee foo xam ne yeewu ku fa ànd leer ak wàllu. fu ngeen dem te amul liste wàllu jàppale leen bennoo ko pare na kon pour dem élection parce que xam nañ ne moo fi sës. mais mais mais euh, mais est-ce jàppoo ne galgal politique la. non politique moom ak galgal loolu day am pouvoir boo gis day def ay pexe pour continuer nekk ci pouvoir bi opposition boo gis day def ay pexe pour ñëw ci nguur gi. loolu mooy yoonu démocratie ça c'est les jeu normal no jaar ci yoon kay weesuwul moom kenn ku ne yaa def sa liste déposée. Déthié Fall bi muy déposé liste bi Benoît néew ko defal nangam ak nangam Benoît ba muy def ay listam ba mu defee erreur moom la daal loolu moo ci nekk waaye affaire list moom fi ñu toll nañ ko bàyyi li ci des kay mooy pré campagne ak campagne. léegi loolu moo fi sës. léegi ñoom nee nañu euh, élection du am sans seen liste nationale yow lan moo ci sa xalaat. loolu moom xam nga opposition dañuy wax rek boo fàttali ko en son am na ñu fi waxoon ne Karim Wade kenn du ko jàpp. jàppuñu ko kenn du ko yóbbu kaso demul kaso kenn yéenewul kenn kaso waaye dama ne la opposition bu fekkoon ne opposition lu mu wax lu nekk mu am kon nëgë ni duñ fi nekk mais li am solo mooy Abdou Khadre Sénégal lañ nekk te ñoo ko bokk 2011 ñun ñii dañu ab Ablaye Wade amul droit déposé troisième candidat ba mu déposé conseil constitutionnel validé candidature am Macky Sall def ne dañ dem campagne. kon fi ñu toll nii moom conseil constitutionnel jël na décision dem defi campagne dem élection moo fi des. mais yow jàpp nga ne élection dina am. non mënut a ñàkk am yow tamit élection dana am loolu ku koy xalaat mais attends ci Sénégal lañ nekk république lañ nekk avec des lois dafa am ñoo xam ne nag ñoom la état bi jox la sécurité loolu ñu naan ci tubaab les forces de défense et de sécurité ñooñu bu ñu ci yeggee ñooy assurer sécurité élection bi. loolu moo fi des amul leneen. waa mais gis nañ yéen benn Bokk Yaakaar au lieu que ngeen di tempérer euh, mais yéen seen coalition bi amee Aminata Touré Benoît ñi mu àndal dañuy menacer waate euh, di xuppaate loolu ñoom euh, fan lañ ko teg. non menace moom bu fekkee ne am na rek xam nga ne ci camp opposition nag la gën a jóge parce que ñun dañoo dem élection gagné Sénégal yi fal ñu wax ñu ñu liggéey. kon ñun suñu wàll du ay menaces. mais moom ngeen suñu wàll mooy liggéey pour def ay résultats te yaa ngi ndakaaru gis nga li ñu toj di tabax terre baa ngi nii dañ ne du ma sa daw nekkul di daw di yóbbu clients yi ah autoroute yi dañ ne du am pont yi bi ñu koy tàmbali ci ndakaaru dañ ne du dem tey auto pont amul kër góor gi amul yoof ñu ngi teg bu Cambérène ah mais loolu la ñuy wax ñoom. mais ñun dañoo sas pour ñu liggéey def ay résultats ci loolu la ñu nekk. waaw mais opposition bi kay ñooy menacé. mais loolu la aussi seen seen. mais ak benn bokk yaakaar. non non moi je pense que man day jàpp ma ne am nay responsable ku koy mën di def it defoo li nga war. ñun li ñu war mooy liggéey. pour faj soxlay euh, sénégalais yi. xam nga euh, Lamine Bara Gaye tey opposition yi su waxee da ngay dégg ay Aminata Touré naan. Euh, force restera la loi danañu faire face nga gis waa bennoo naan dañuy def contre manifestation mais yooyu yëpp da nga koy dégg. waaw xam nga tamit euh, débat politique dafa am mënuñu bàyyi également opposition bi rek ñu occuper débat politique bi fu ñu toll di wax di dagg il faut que également bu ñu waxee loo xam ne du dëgg ñu tontu leen ne la lii jàpp nañ ne du lii lii moo war a nekk comme bu ñu jógee ne élection du am déglu nga président démb wax na ci France 24. ak RTS nee leen kuy naan élection du am loolu kon nañ ko bàyyi ci suñ kanam la nekk nekkul suñ ginnaaw. loolu mooy dëgg ah non loolu du menace le président c'est le premier garant des institutions de la République. non mais xam nga buy wax naan euh, élection dina am euh, li ci kanam rawati un point un trait loolu président loolu la wax. non xam nga euh, président li muy wax da koy wax parce que. président de la République mooy garant fonctionnement normal u institution yi bu nit ñëwee ne élection du am mais président bu ñu ko ci laajee ci loolu war na ne mais ki koy wax peut-être jàpp na ne moom loolu moo nekk ci xel waaye buñ demee le 31 juillet danañ xam ba xam élection dana du am wala du am ñoom ñu ne élection du am kay buñ campagne nañ toog léegi euh, rassemblement bi nga xam ne euh, coalition Yewwi Askan Wi def nañu ko mu nekk euh, rassemblement boo xamante ni tey Euh, mën nañoo wax ne génn nañu euh, askan bu bëree bare bare bëri est-ce que ñooñu génn euh, ban lecture ngeen si def. xam nga génne ay mbooloo moom ci mbedd mësul nekk baromètre pour gagner ay élections. non ci xanaa bu dee ci pouvoir bu dee ci pouvoir ñi nga xam ne ñoo yor xaalis ñoo yor alal mais opposition bu génne mbooloo. avant ñuy dem élection présidentielle 2019 ñoom daawuñu def marche place de l'Obélisque muy fees dell bañ demee élection ndax teen Macky Sall faluwaat. communes yi passé avant ñu koy def du dañ daan marche fu nekk bañ demee élection ndax taxul ñu gagné communes yëpp yëpp mais amul problème loolu mooy c'est normal on est en démocratie loolu mooy démocratie élection yi ñu jëm nii ñoom fa faaw ñu am ay député am na sénégalais yoo xam ne bu Macky Sall soppali woon garab yi ci Sénégal yëpp def ko or dafa leen xaalis seen compte bancaire sax bu élection jotee duñ ko woteel loolu mooy dëgg am na ñoo xam ne dañoo choisir nekk ay opposants soutenir opposition nous respectons leur soi waaye ñun aussi am na sénégalais yoo xam ne tey jii opposition bu doon marche ba déwén nit bu ñu demee ci mbañ gàcce yu Macky Sall la ñuy fal wateel ak Benno Bokk Yaakaar. mais mais d'accord nga ne nit ñi génne nañ. non am na mbooloo loolu kay ñëpp d'accord nañ ci te ña fa nekk ay sénégalais lañ du ñu ay malien du ñu ay bi ay sénégalais lañ. d'accord léegi euh, yéen Benno nee ngeen tamit mercredi euh, da ngeen di amal rassemblement lu ngeen si jublu. waaw xam nga démocratie tamit ñoom bu fekkee ne dañuy jóg toujours ñooy marche ñooy dajaloo mën nañu jéem a travailler opinion bi wane ne ñun tey dañoo maj dañoo minoritaire c'est normal tamit ñi far ak président Macky Sall bu leen neexee ñoom it ñu def ab rassemblement pour wane ne ñi doon jàppale Macky Sall ñi ngi fi ba léegi. mais mais ñoom nee nañu euh, coalition Yewwi nee nañu vendredi bii di ñëw 17 euh, juin dinañu amaat beneen euh, beneen mobilisation. ah loolu moom xam nga bu ñu defee seen demande respecter procédure yi état ak préfet mooy contrôler mooy vérifier bu préfet d'accord encadré ko comme ni ñu ko defee bu leen neexee àjjuma ji jot wala deux jours yu nekk nañ def seen rassemblement loolu seen droit la. waaye ñun li am solo ci ñun. mooy ñun nañu liggéey pour que dem wax ak sénégalais yi nga xam ne déggaguñu ñu pour ñu convaincre pour que ñu ñëw jàppale ñu. loolu rek moo nekk. mais yéen pare ngeen pour dem euh, élection te am nga xel mu dal ne yeewi dinañu bàyyi élection yi ñu déroulé ko normal. non loolu moom élection dana am moom ak du am moom loolu moom xanaa. romb nañ loolu loolu romb nañu ko. leer kay mooy ñoom danañ tàmbali léegi nga gis leen ñu nekk ci pare campagne loolu mënut a ñàkk faaw ñu campagne ku bëgg a falu dem assemblée ku bëgg dem faw nga bokk ci élection yi. waaw mais yéen euh, est-ce que coalition yi ak wàllu nekkul coalition boo xam ne. Euh, tiital na leen. non amul lu muy tiit xam nga démocratie moom opposition ñaari nit sax bu ñu beroo fële il faut les prendre au sérieux parce que ay sénégalais lañ ñun li ñu bëgg mooy liggéey pour gën a ko renforcer la base électorale Benno Bokk Yaakaar kon li am solo mooy tey jii effectivement Yewwi ak Wallu seen démonstration bi def nañ démonstration de force mais loolu ñun jël nañ ko danañ ko jàngat ci suñu biir danañ ci liggéey tamit. mais est-ce que euh, Benno Bokk Yaakaar euh, guerre de positionnement bi ñuy wax entourage président Macky Sall euh, xeexante bi est-ce que loolu tamit mënu leen yàqal. bon loolu moom dañ koy wax nii parce que politique it moom looloo ànd ñi nekk ci biir mouvance bi ñëpp ànduñu ñëpp bëggantewuñu ça c'est vrai mais teewul bu élection ñëwee kenn ku ci ne da def li nga war a def pour que Macky Sall am majorité. léegi li seen liste. Euh, titulaire bi seen liste euh, titulaire bi Aminata Touré jiite est-ce que Aminata Touré profil bu baax la. ah lu ko tax. Ah, Aminata Touré quand même c'est un haut fonctionnaire. et politiquement. institution yi état bi yore woon fii yëpp dirigé na ci yëpp. mais politiquement mais politiquement. ah no politiquement moom xam nga. président politique. non président de la République mooy def lu tax nga ne amul base. fan la mooy base amul base Kaolack lay Kaolack lay ministre ah eh, ngay laaj wala da ngay def say affirmation. non dama wax na la ah. Aminata Touré amul base politique amul benn dayo politique da ngay wax kay ne bu ñu koy tabbu tête liste wax ma leneen mais politiquement gisuma lu tax ñu waroon a jiital Aminata Touré ci liste nationale bi. Aminata Touré Kaolack la nekk responsable de base la. responsable de haut niveau la ci suñu appareil d'État président de la République mooy tànn tànn na ko te ñun ñi am nañ ci moom confiance te danañ ko jàppale loolu moo nekk nit ki am na base ak amul base du base kenn fii kenn moo fi am base di ko yore muy président Macky Sall ñi ci des ñun ñëpp dañuy góorgóorlu pour renforcer ko waaw eh, waaye ñun nekkuñ ci ay appréciation Amadou Ba ak Abdoulaye Diouf Sarr ak Mimi Touré déedéet loolu man waxuma ko benn responsable li am solo mooy la couleur Benno Bokk Yaakaar. mais tête de liste bi daf ci am solo. voilà tête de liste bi. tête ci am solo trop tête de mais moo tax ñu tànn ko ñiy voté ci senegal jigéen ña ci ëpp te am Touré jigéen te ñëpp xam nañu tamit am na fulla am na fayda am na dayuwaay. am na cursus ci état mais amul charisme politique. non lu tax loolu kay yaa koy wax rek. Ah, waaw loolu yaa ko wax. d'accord léegi yéen euh, Dakar aussi euh, capitalu Sénégal euh, ngeen dem jox ko Aliou Ndoye Amadou Ba nekk fii fi lay Diouf Sarr nekk fi wala da ngeen di jàpp ne Amadou wala Diouf Sarr ku ngeen si tabbu ki si des day banki loxoom. xam nga xam nga problème mu choix yi moom romb nañ ko jàpp xaar ñun fi ñu toll nii mooy liste Benno Bokk Yaakaar bu Dakar gagné liste nationale bi gagné. jàpp ngeen man débat politique moom fu ci nekk fañ ca toll ci laay bëgg a wax. Ah, mais est ce que jàpp ngeen ne mën ngeen a gagné ko. Ah, d' a gagné. bañ lu tax mënuñoo gagné Dakar. danañ man damaa jàpp ne. mënu leen a gagné Dakar. waaw loolu nga jàpp mais résultat moom yii passé dañ koo perte. Mhm. ñu ngi pour nangu ko ci ñoom. waaw ñun gagné guñu kon ba koy perte. man damaa jàpp ne dañ naan jëluñu woon Dakar nanguwuñu woon Dakar ci ñoom dañuy demaat élection nag pour nangu ko ci ñoom. waaye député yii passé Dakar ñoo ko gagné woon. waaw 2017. waaw les sept députés de dakaar sont de Benno Bokk Yaakaar. waaw opposition bi tey ñoom ñooy ñëw pour nangu député yi. ñoom ñoo gagné local yi mais député ñoo leen gañ. 2017 boobu ñu bari jàpp nañ ne gagné leen ko ci anam bu leer. ah non lu tax. léegi léegi ñu ñëw ci euh, élection locale yi dama la wax sànq na la xam nga dakaar sept député la te am na nombre boo fi am dafay ñëw ci euh, ci titulaire yi yéen li tax man ma jàpp ne mënu leen a gañ a Dakar. mooy politiquement Ablaye Diouf saar moo ëpp dayoo Alioune Ndoye te Ablaye Diouf Sarr gañewutoon te diggante local yi ak fi ñu toll nii deful leen fi dakaar lu tax ngeen mën a gañe beneen bi euh, njëg yi gën a yokk est-ce que du leen gën a handicapé. élection moom bu tëkkalee résultat yi yi nga amoon ci local yi nga yaakaar ni même résultat moo war a am ci législative yi d'une élection à une autre les choses bougent dégg nga élection locale lañ jógewoon léegi ci département législative lu ñu jëm am na beneen configuration ñu bëri ñi gañe woon ci Dakar tey na nañoo ñun du Jibril Wade moo gañe woon Biscuiterie tey ci suñu liste la nekk Bamba du moo gañe woon Médina tey mi ngi ci suñu liste lan moo tax nga ne kon waruñoo am jàpp ne danañ gañe dakaar mais loolu moo tax jàpp nañ ne ñun war nañ mën a gañe dakaar ci loolu la ñuy liggéey pour que waa population Dakar gis chantier yi président Macky Sall def Dakar ñu xam ne kii mi ngi liggéey Dakar te ñun ñëpp biir Dakar lañ nekk gis nga circulation bi ni mu méttee BRT bi moo ko waral ak li nga xam ne ñu ngi ciy liggéey. waaw man yéen a liggéey doo xal ay réew doo toj ay mbenn di def ay chantier. d'accord léegi euh, Lamine Bara Gaye euh, gas ngeen Dakar ba kere ngeen fi embouteillage bu fi tawee problème mën na fi gën a am mais nit ñi xëy ndekki añ reer dafa jafe askanu Sénégal njëg yépp yokk est-ce que loolu mënu leen a indil jafe-jafe yi. Abdou Khadre dëkk boobu bu dem ñuy liggéey ci développement ñu ngay toj di liggéey man barki démb laa jógee Abidjan bi ma bañ naa ko bi muy ñëw dama photo affaire yi génne ko ci Facebook nii ñu def Dakar ñun di defar suñuy pont embouteillage yu metti moo am Abidjan moo am ci pays africain yu bëri li nga wax ci ay jafe-jafe nag nangu nañ ko parce que ñun bu nit ñi yaakaar ne ñi nekk ci pouvoir bi mais ay sénégalais lañ jafe-jafe yi sénégalais yi am dañ koy am ñun ñii. mais moyen de jafe-jafe ci circulation bi. ñi ngi daj embouteillage yi ñu ngi dem ci dëj yi di dem ci sarax yi di dem ci génte yi y a pas deux sénégalais entre ceux qui sont au pouvoir ak ceux qui sont de l'opposition nous sommes tous des sénégalais di dund jafe-jafe yi am ci réew mi ni ko ñëpp di dundee. waaw non bu dee euh, embouteillage yi. voilà bu dee embouteillage yi yéen a ngi dundandoo ak ñun embouteillage yi mais bu dee wàllum xiif bi. Euh, man jàpp naa ne ni askan bi nekkul ci pouvoir bi sonne ak sénégalais lambda bi yéen ñi nekk ci pouvoir bi euh, dundeewu leen noonu. mais mais mais li ma la bëggoon la waaw ñëpp a ko am gis nga crise bi am au niveau mondial gis nga guerre bi am Russie ak Ukraine ban réew moo amul jafe-jafe chaque jour ñu waan la France ay nit ñoo xam ne ci bitti la ñuy fanaan ay nit ñoo xam ne ci mbalit li la ñuy dem pour jël pour lekk amul benn réew ci àdduna bu amul ay jafe-jafe. waaye li am solo mooy est-ce que ñu yor état bi xam nañ jafe-jafe yooyu ak ñi ngi liggéey pour trouver ci ay solution per que démb la président Macky Sall jël engagement lu toll ci ñeent fukki milliards ak ñett ñu def ko ay cash transfert directement mille 000 80 000 man dëkk bee ma dëkk Taïba Cekkeen bëri na ñu ko jot bi ma ñëwee dañoo ñëw ne ma ñi ngi sant président man de jot naa message bi wan ma ko ay nit ñu jël message bi muy fukki junni ak. juróom benn mais est-ce que cash boobu ñu jënd ci diw jënd ci euh, ceeb jënd ci kafe indi seen kër teg. waaw mais est-ce loolu mooy solution est-ce que mais ndimbal la jàppale la pour que nit ñi mën a gën a góorgóorlu liggéey ci loolu. d'accord dafa am obligation également jàppale ñi nga xam ne dañoo néew doole. d'accord léegi euh, Lamine Bara Gaye nee nga. Euh, jot nañ xaalis quatre-vingt mille am na ñenn ñu ko jot mais bi nga ne ma jot nañ danga ne ma ñu dem jëndi ceeb jëndi diwlin jëndi suukar waaye quatre-vingt mille yooyu boo si jëndee ceeb jëndu si diwlin ak suukar presque dara du si des ndax yii ma la wax njëg yi dafa yokk ba mën naa ne dafa quadruplé. non mbir mu yokk moom du Sénégal donc la flambée des prix c'est au niveau mondial Abdou Khadre amul benn réew bu amul ay jafe-jafe ci ay jokk ay yokk. parce que adduna bi dollar bi ak pétrole bi ñoo ko yor. te fépp a yokku mais lu ñu wax ngeen ne guerre bi. mun mënut a ñàkk mënut a ñàkk Lamine Bara jóge ngeen ci coronavirus bi mais lu ñu wax ngeen ne guerre bi. corona ngeen ñu doon wax léegi ko léegi guerre bi ngeen ñuy wax. Abdou Khadre amul fenn fu amul jafe-jafe adduna bi ci boppam moo toll ci ay jafe-jafe et li ñu war nag mooy liggéey ci waaye dañoo teg ay instruments économiques yoo xam ne ñooy def financement yi pour jàppale ndaw yi xëyu ndaw yi gis nga liñ ci liggéey. financement femmes yi gis nga liñ ciy liggéey ak leneen ak leneen waaye nag kenn du ñu toog fii jàkkaaroog Sénégal yi ne leen réew mi voilà ça va très bien tout marche déedéet loolu kenn du ko wax. mais yow parce que man mii di wax ak yow ma Ndakaaru weekend bu jot damay dem ci àll bi. mais sant nga ne njëg yokku waaw waaw yokk na loolu kay d'accord nañ ci waaye jàppal ne également mi ngi doog a yokk ci Sénégal deux 2012 la Macky Sall jël pouvoir bi prix mësul yokk. loolu mooy dëgg gi parce que dañ ko maintenir woon. di def subvention. ba ñëpp dem ne il faut appliquer la vérité des prix. d'accord mais ça c'est l'engagement de Macky Sall. aller dans les autres pays diw kañ la yokk woon Côte d'Ivoire kañ la yokk woon Mali dans les autres pays mais Macky Sall avait maintenu la politique des subventions tey nag état bu demee ba xam ne également nag fii la war a mën a yem mais day bàyyi li ci des citoyens yi supporter ko et c'est ça la vérité également. nañ ci essence baa nii. kañ la gëj a yokk ci Sénégal. mais yokk na essence. mais d' accord parce que àgg nañ foo xam ne état également dafay yemale fi nga xam ne foofu la kàttanam yem dañoo toll foo xam ne nit ñi mën a tollee la nax waaye ñëpp xam nañ ne président Macky Sall def na kemt laay kàttanam pour que bu yokk am. waaw mais mais waaye bu ñu demee ba xam ne nag fii la mën a yem mais dañuy yokk c' est normal. waaw mais waaye yokk de façon à ce que sénégalais yi mën ko supporter. mais train de vie de l' état dafa dafa dafa jéggi dayoo. déedéet amul loolu loolu ça c' est ñun ci état la ñu nekk. léegi institution yi ñu wax ne euh, institution euh, au conseil des collectivités territoriales conseil économique social environnemental ñu bari dañu jàpp ne amul njëriñ. non loolu loolu c'est un débat boo xam ci. c'est liggéey li ñu war def dans le jeu institutionnel. le social mi ngi def liggéeyam HCCT ñi ngi def seen liggéey. ñun c'est ça les options politiques du Macky Sall ñun ñooy réew mi option yooyu président moo ko def dañ koy jàppale. ñeneen ñi ko fi bëgg a jëlee nañ fexe ba gagné bis bu ñu gagné bu leen neexee ñu jëlee ko fi. d'accord jërëjëf euh, Lamine Bara Gaye yow yaa nekk directeur général bu CNEPS euh, nga bokk ci cadre APR yi responsable politique euh, dëkk Mbacké. adjoint maire <laughs> adjoint maire Mbacké léegi Lamine Bara Gaye man dama gis ne ñun Sénégal mënuluñ suñ bopp dara amuñu autonomie ci dara amuñu indépendance alimentaire. lu jëm ci wàllum wér yaram gi presque moomu ñu suñ bopp ndax lu si bare bëri dañ koy jëggaani meew dañ koy jëggaani euh, diwlin gi nga wax nii nan nga mën a comprendre réew mu mel ni Sénégal espace bi mu am ndaw ñi mu am war a mën di produire diwlin euh, duñ ko produire loolu euh, wàllum industrialisation politique boobu est-ce que président Macky Sall essaye si. bul wax du ngeen produire Sonacos lu muy def. son Sonacos diw lay def. da nga naan kay li ñuy produire couvrir agul marché bi yépp lu tuuti la mais non non du lu tuuti lu am solo la ñu ngi produire diw. Sonacos day defar diw am na yeneen unité yu fi nekk boo demee Touba géema dëkk am na unité yu fa nekk yu togg diw waaye nag sénégalais yi ñoo bëgg ceebu diw ñoo bëgg diw li ñuy utiliser ci diw waxuma dafa bëri waaye am na solo ak li ñuy utiliser ci ceeb. loolu c'est normal bu fekkee nag marché yëpp nag noonu lay doxee dafa dee nag Lamine Bara waaw ah, a ngi dox quand même. mais Sonacos ngi dox mais Sonacos presque aw xott la. waaw waaw mais non non mi ngi dox toi aussi c'est buy liggéey di produire di fay ay sénégalais. demal Diourbel nga dem Kaolack demal Ziguinchor nga ne Sonacos doxul bi ngi dox. d'accord mais adjoint maire yow. frère Modou Fa Diagne fa nekk. non foofu moom euh, wax dëgg yàlla gisuma fa résultat. ah waaw ñi ngi liggéey rek. ñi ngi liggéey moom presque kenn gisu fa résultat. demoo beneen bi wàllum euh, autosuffisance en riz yi yéen ñu ko digoon mais yaakaar bu tas la si Sénégal yi mujjee gis. non da nga naan matalaguñu lépp waaye def nañ ci lu am solo demal ci producteurs yi à la vallée xam nga yéen aussi da ngeen di nekk Ndakaaru rek est-ce que yow mos ngaa dem Waalo nga wër hectares yi nga xam ne ñi ngi fay bay ceeb. Sénégalais yi tey jii de plus en plus ñu ngi lekk ceebu waalo bi. waalo dañ ceeb dañ koy bay ba fii ci Nioro gi rek ba fii ci Kolda. ay hectares yi hectares yoo xam ne la ñuy at mu jot. d'accord non non non Kolda dama bi anam bi boobu nga wax Kolda. oui yéen a ngi fi fekkoon mille et quelques hectares. fi dem ngeen ci cinq mille ectare léegi dama ne la dem ngeen ci cinq mille hectares. mais fekkoon rek yokk nañu waaw dama ne la mais nit ñi tamit dañuy yokk. waaw ah, d'accord naa. ndax budget bi tamit dafa yokk. waaw mais bul wax ne yokkuñu ko ñu ngi yokk nañu mbayu ceeb bi li ñu ci def. mais budget mais budget bi ñu leen jox dafa yokk budget bi. man damay liggéey doomu baykat la ci àll bi laa dëkk ba pare damay topp les politiques publiques damay waxtaan ak ministres yi ak ñi nga xam ne ñoo yore politique publique yi dama ne la suñu frère Moussa Baldé ak agriculture depuis ci Pape Ablaye Seck ba agsi ci moom mii li ci président Macky def ci investissement pour que ñu moderniser ko liñ ci def ci ay intrants mooy engrais bi mais liñ ci def également avec ISRA pour mën a am des semences de qualité loolu ñu naan renouvellement du capital semencier li ci suñu gouvernement def dëgg gi mooy kenn mësu ko cee def ba Sénégal di Sénégal bu nëg ni newuñu nag lépp mat na waaye góor góorgóorlu nañ ci tey sénégalais yiy lekk ceebu Sénégal bi ñu bàyyee Sénégal moo ëpp fop li li li ko daan lekk mmh. parce que gëmloo nañ sénégalais yi tey boo gisee gouvernement bi même ndimbal yi muy def ci màggal yi ak ci grande manifestation yépp ci ceeb bi nga xam ne moom la ñu bàyyee ci réew mi ci lañ koy joxe léegi euh, ñu ñëw euh, wax nañ si njëg yi mais bi ñuy wax ci législatif yi dafa am lu ma fàtte woon tuuti force ñu revenir si muy département Mbacké département Mbacké seen liste bi moom euh, am na ñoo xam ne nee nañ daanu na ba pare ñàkk ngeen ba pare ndax ña nga xam ne tey ñoo fa nekk di politique di ay politique dëgg muy yow muy Gallo Ba muy ñu bari ñoo xamante ni dugaluñ leen ci liste boobu seen liste boobu est-ce que jàpp nga ne liste buy gañe la. man mii di wax ak yow ñaar fukki at yu teg laa nekk ci processus électoral élection mënuñoo defar ay liste rek ñii ni liste bi day perte wala bee day gagné nañ xaar ba ñu dem ci élection yi ba pare. li am solo nag mooy effectivement man nekkuma ci liste yi suñu frère Gallo Ba nekku ci Mbacké moom benn lañ ci am. en tant que maire muy Daba Diouf. waaye nag xam nga avant ñu dem ci élection président république suñu président par coalition dalal nañu wax ak ñun ne ñu yi. am na feneen fu ñu leen soxla waaye nag na jàpp ci liste bi xëcc ko tey nag am na ñu ñu ci dugal man Galas Kaltoum mi nga xam ne mooy tête de liste bi woo na ma toogaguñu nag maak moom mais woo na ma am na lu ñu wax maa ngi xool nag ba xam naka la ñuy doxalee. d'accord mais engagement bii nga ma lii nga ma wax nii ci Galas Kaltoum waxoon nga ma ko ci galo ba nga ne ma su dee jóg na pour bëgg a gañe ba seet si ma wane luy wane ne bëgg naa gañe Euh, dinaa si soobu est-ce que engagement bi nga amoon ci local yi di ko am ci député yi. waaw ah, maa ngi xaar ba nga xam ne toog naa ak Galas parce que wax nañ ma ak moom téléphone mais gisante guñu xamaguma naka lañ bëgg a tàmbalee liggéey bi parce que man it département Mbacké doonatuma ci responsable bu ndaw ñaar fukki at ak nangam laa def ci processus électoral xam naa ko man dara ak ku mënul dara xam naa naka la ñu war a organiser ak processus électoral pour gagner. xam naa carte électorale u département bi commune par commune dëkk par dëkk surtout Touba am na lu ma ci xalaat am na lu ma ci xam bu fekkee ne créé nañ cadre bi ñu war a xam moom la ñu war a créé ñu war a toog entre responsable waxtaane ko dinaa ci wax suma xalaat bu ñu tàmbalee dinaa ci jëf li ma ci man parce que man it nag tey damaa nekk responsable national di directeur président de la République wóolu ma jox man ndomba tànk may liggéey ci gouvernement bi kon dama am obligation jàppale ñi nga xam ne ñooñu ñoo amaat confiance su président bien que liste bi am na ñeneen ñu ma ci gënoon a xalaat amoon naa ci ambition man mii waaye teewul nag bu président defee ay choix ñun dañoo am obligation jàppale liste bi président teg waaye nag liggéey bi ak ni ñu koy organiser loolu moom il faut ñu toog entre responsable ma wax ci li ma ci xalaat xool naka lañ bëgg a tegee liggéey bi parce que locale yi passé ba ñu defaree liste bi jiital Matar Diop mu jóg commencé def campagne am ay erreur ci yenn côté yi dama teel a wax yëkkati sama kàddu wax jël kayit bind cabinet président ne leen liggéey bi ni mu defee nii ak nii boobu ñu ngi doog a tàmbali campagne fi ñu jëm baaxul kon man duma loolu ñu naan responsable waxoon naa ko déedéet xamoon naa ko damay wax toujours ba wax jotee d'accord mais waaye maa ngi toog nag di xaar est-ce que cadre boobu de concertation bi ñu war a teg teg nañ ko ñu bokk liggéey bi. d'accord mais Lamine Bara Gaye yéen euh, ci élection locale yi yow da nga gisoon ne li taxoon ngeen doon ñàkk mooy yéen waa APR da ngeen doon jël rek ndomba tànk yi bu élection ñëwee du ngeen ci boole kenn ngeen aakimoo ko locale yi nga nga demoon taxawal seen seen permanence. nga boole si waa coalition benn bokk yaakaar waa parti socialiste waa AFP ñëpp ngeen woon leen boole woon leen ci mbir mi est-ce que du loolu moo taxoon ngeen euh, am victoire Mbacké mais est-ce que tamit taxawaay boobu bu ngeen ko amul euh, du ngeen am problème ci les législative yi. mooy li ma la wax rek parce que élection moom liggéey la du ay caaxaan c'est une question d'organisation de méthode nga teg équipe. xam naka nga leen di responsabiliser moyens yi kan moo ko yor naka lañ koy saytoo ak fan lañ koy teg ak fan la war a dugg nga doog a teg nag sa stratégie de campagne loolu laa wax ne la am na lu ma ci xam. am na lu ma ci xalaat. gisaguma nag ñu créer cadre bi ñu war a créer pour mën ci liggéey. maa ngi xaar ba cadre boobu am. waaw mais man nag jàpp naa ne benn boo ko yaakaar day ñàkk département ba ak ci élection législative yi. déedéet déedéet déedéet man li ma gëm mooy même élection locale yi passé dañ ko waroon a gañ. dañ ko gañ dañ ko waroon a gañ problème d'organisation la et de méthode. mais yéen lan ngeen mën a gañee moo jaarul fi mu war a jaar. mais yéen ñi war a waxaat mu wax ak ñoom ni ñu war a organiser liggéey bi ñu organiser ko. Ah, waaw d'accord léegi am ñeneen ñu nekkoon ci suuf également di yàq. ah bon loolu mooy dëgg gi. comme kan. Oh, may tudd ay tur. mais xam nañ ko euh, yi bennoo yeewi rek da leen a gañee mais bii yeewi la ak wàllu euh, Ousmane Sonko Ablaye Wade composition boobu est-ce que mën ngeen leen gañee. mën nañu gañee. man jàpp naa ne élection locale yi passé comme li ma la wax ñoo waroon a gagné département Mbacké. Hmm. waaye ñoo waroon a gagné commune yépp tamit. jërëjëf euh, Lamine Bara Gaye ñu wax ci euh, njiitu réew mi di président Macky Sall fan yi euh, demoon na fi nga xam ne tey moom mooy ca demoon na Russie est-ce que jàpp nga ne demam boobu solo si bëri na. am na solo xam nga président de la république tamit tey jii Macky Sall mooy président Union africaine maanaam Afrique yépp kuréel gi nga xam ne moom la ñu teg muy Union africaine président Macky Sall moo yoree présidence bi Sénégal loolu moo tax tamit tey jii kàddoom dafay gën a jub fépp fu tey instance mondiale yi di daje dañ ko cay jox kàddu dafay dem teewal fa Sénégal waaye teewal fa Afrique gi yépp loolu moo tax bi problème Russie bi tegee te ñépp xam ni Russie liggéey bu am solo position bu mu am ci carte économique bi rawatina nag engrais bi rawatina pétrole bi rawatina gaz bi ak blé bi mais loolu moo tax président de dem wax ak moom te ñëpp gis nañ ko parce que audience bi dem nañ ba président dañ koo filmer mu toog ak moom alors yu ci bëri rencontre yu mel noonu à huis clos la daan nekk loolu nag dañoo war a wane ne engagement président Macky Sall parce que non seulement dafa dem waaye dafa toog ak moom dañ ko filmer publiquement mu wax ko ay dëgg génn taxaw ci buntu perron bi ci palais bu Poutine waxaat defaat conférence de presse leeral lépp li mu ko wax loolu quand même Abdou Khadre kuy sénégalais waxuñu la nga bokk appel wala feneen bay da nga cee war a contact parce que président Sénégal la Macky Sall tey président Sénégal ku ko falal ku ko woteeloon ak ku ko woteelul yépp mooy sa président. kon na nga jàpp ne Afrique moo am victoire wala Sénégal. seen ñëpp am nañu victoire. waaye nag victoire diplomatie Sénégal la. waaw mais nag euh, président Macky Sall daf ko wax na ko. ñi nga xam ne tey ñooy pays euh, africain yi euh, victime lañ ci guerre bi li nga xam ne moo jëm ci wàllum dund ñoom ñu fexe mu bàyyi euh, ñu muy muy dem ci ci réewu ci réewu Afrique est-ce que jàpp nga ne kàddu Macky Sall en tant que njiitul Union africaine est-ce que kàddu la goo xam ne gu crédible la gu am doole la ci ci ci kanamu Poutine. mais mooy dëgg Abdou Khadir bu semaine bee passé rek lañ defoon fii ci Dakar réunion des ministres africain des finance ak les bailleurs de fonds banque mondiale ak FMI ñëpp ñëw toog fii Diamniadio président de la République jël fa kàddu lam leen wax jàpp naa ne sax dafa loolu ñu naan les foromu diplomatiques sax président respecté wu ko daf leen wax clairement ne leen tey système des nations unies ni muy doxee dañ ko war a réformer parce que mënu leen yore système des nations unies tey tey tey état africain yi tooguñu fa c'est un système dépassé suñu bor yi également nanguwuleel ko éliminer yu ci bëri ñu continuer di leen ko fay tant que yéen a ngi koy def day créer insécurité en Afrique te tant que Afrique bi nga am insécurité yéen waa Europe du ngeen am jàmm mais Abdou Khadre jamais dans l'histoire président Abdoulaye Wade ku ñu respecté la président Abdou Diouf la même chose mais un président de la République du Sénégal di def un plaidoyer bu toll noonu sur la scène internationale ak tey position bi fois Sénégal am mais quand même loolu Abdou Khadre kuy sénégalais war nga ci kontaan. d'accord jërëjëf euh, Lamine Bara Gaye euh, ñu ñëw nag wax nag ci service bi nga xam ne yaa ko jiite mooy euh, SNEIPS nga nekk directeur général bu SNEIPS def nga fi at ci kër gi lan nga ñu mën a wax ci at boobu. waaw li ñu am solo mooy maa ngi santaat bu baax monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr nga xam ne moo amoon ci ñun confiance ak président République teg ñu di santaat également madame le ministre euh, Marie Khomos Ngom Ndiaye nga xam ne tey jii moo yore lenge yi ci ministère bi li am solo mooy bi ñuy jël service daanaka booba ci biir Covid bi la bien que cas yi wàññeeku woon nañ waaye ñu ngi ciy góorgóorlu comme bi ma ñëwee ci administration def naa lu ñu naan audit organisationnel xool service bi fan la toll. ma ànd ci ak euh, bureau bu ñu naan bureau organisation et méthode ci gouvernement bi la nekk mooy saytu service public yi xool liggéey bi fan la tool ñu defal ma analyse defal ma ay proposition tey jii rapport bi ñu ngi koy séentu léegi tey mu war a génn ñu mën a organiser waat service bi gën koo tegaat ci yoon ah góorgóorlu nañ tamit gën a sensibiliser autorité pour que ñu yokk budget service bi ah li nga xam ne mooy moyens yi ñuy liggéeyee ñu ngi ciy góorgóorlu tamit pour que ñu mën ko yokk jàpp ñu encore ci ay oto parce que service la boo xam ne service transversal la fu nekk lañuy ñuy dem. mais mais voilà lan mooy lan mooy njariñu SNEPS ci ministère de de la santé. suñu njariñ mooy ñooy kuréel gi nga xam ne ñun la ñu dénk comme ni ko tur bi di junjee service national éducation information pour la santé service boobu li ñuy liggéey. mooy lépp li nga xam ne dafa nekk ci ministère bi te saytu ci wérgu yaramu doomu aadama yi ñun ñoo ko war a fésal pour di yee nit ñi pour que ñu bañ am yenn jàngoro yi parce que li gën mu comme ni ko suñu slogan di waxee fajaru fagaru moo gën faju dañu war a fexe ba di yee sénégalais yi ñu am ay comportement exemplaire par rapport ak la santé nit ñi di am habitude di dem seeti dentiste avant seen bëñ di metti nit ñi di am habitude dem seeti ophtalmologue avant seen bët di metti nit ñi di dem am habitude di dem di seeti seen bilan nit ñi di xam jàngoro bu ci nekk lan moo koy joxe lan la ñu war a def ba bañ am doomu jàngoro boobu waaye bu ñu ko amee naka la ñu war a def ba dem faju loolu mooy prévention li ci desaat nag mooy côté nag information di jox nit ñi la bonne information ci feebar bu ci nekk li ci des nag mooy le côté prévention maanaam li nga xam ne bu événement yi amee ñu dem war a jàppale nit ñi yeeleel def ay support de communication def ay publicité yóbbu ay moyens de euh, produits d'hygiène loolu ñu ngi ciy liggéey liggéey bu am solo ce organisme boobu ñuy tuddee OMS gis na liggéey bi ni ñu ko defee ba tey ji ñëw nañ seet si ñu ne ñu dañu bëgg a jàppale pour ñu tëggaat loolu ñu naan ci tubaab la stratégie nationale de prévention de la santé ñu war ci def ay koppar yu am solo nga xam ne danañu jàppale ba ñu gën a mën a yee Sénégalais yi li ci desaat nag mooy tey ji xara euh, jumtukaay xarale yi dafa bees muy matériel audiovisuel loolu tamit tey ñu ngi ciy liggéey bu bëgg nañ incha allah ci weer yi di ñëw ministère de la santé à travers le CNEPS mën a am unité de production audiovisuelle boo xam ne comme tey jii matériel bi lu toll ne kër yu mel ne RTS am ñun war nañ ci liggéey ba nga xam ne tey danañ am matériel jumtukaay yu gën a xarale ba mën a fekk sénégalais yi tey ci seen téléphone parce que ñëpp xam nañ ne tey daanaka nit ñi ñu ngi bëgg a romb fi ñu daan toogee ci télé salon di seetaan télé nit ñi ñu ci bëri léegi ci seen téléphone portable lañ koy seetaan kon war nañu fexe ba xibaar yi wér-gi-yaram yi ñu di ko togg di ko muul di ko def ci ay bande waaye di ko def ci ay jumtukaay yoo xam ne dana mën a fekk sénégalais yi ci seen téléphone ñu mën di ko gis. mais waaw mais est-ce que euh, SNEIPS aussi euh, am na accueil wala communication bu ngeen si def boo xam ne képp ko soxla woon ay xibaar ci lu jëm ci wàllum wér-gu-yaram gi mën naa ñëw ci SNEIPS pour ngeen wax ko. waaw ñu ngi ciy def lu baax am nañu tey loolu ñu naan numéro vert. 800 00 50 50 nga xam ne foo nekk ci Sénégal dañ nga ciy woote doo fay dara boo wootee am na ñooy jot ñoo lay orienté jàngoro joo bëgg a soxla li nga ci wax li nga ci laaj danañ la ko xelal. na mais euh, SNEIPS nag kër la goo xam ne euh, am na solo comme ni nga ko waxee waaye sénégalais yu baree bari euh, dañ ko umpale woon bien vrai que gis nañ yow nga def si communication événement religieux yu baree baree bari ñoo ngi la si ñoo ngi la si gis est-ce que moyens yëpp daje na. pour ngeen def seen liggéey correctement. waa xam nga moyen service public état moom léeg-léeg lépp du yemba dika mais quand am nañu déglu ci ministre bi ak kilifa yi mais aussi partenaires yi nga xam ne ñu ngi ñuy jàppale ñu ci mel ni UNICEF OMS ay USAID coopération allemande tey ñoom ñëpp tey ñu ngi ñëw di ñu jàppale <coughs> loolu la ñu yaakaar ne bàlleel ma bu gënee saytu loolu mooy ñuy may ñu mën a gën a am ay moyens yu gën a am solo pour ñu gën a mën a sémb liggéey bi. loolu ñu ngi ciy def mais mais directeur euh, gis nañ wa mais directeur gis nañ ne fan yi jafe-jafe amoon na ci wàllum wér-gu-yaram gi ba fukk ak benn ci ay liir ñàkk seen bakkan fi nga xam ne mooy hôpital Mame Abdou loolu sax euh, moo tax Abdoulaye Diouf Sarr ñu wàcce ko xew-xew boobu yow noo ko jàngate waaw loolu moom comme ni nga ko waxee xibaar la xew-xew bu tiis la woon ñi ngi yeesalaat suñu njaal ci ñi nga xam ne ñoo nekk ñoo ñàkkoon seeni doom foofu waaye jàpp naa ne ñëpp gis nañ taxawaay bu am solo bi ci gouvernement Sénégal taxaw commencé par président de la république dagg aw yoonam ministre bi ñëw guddi lañ fa dem man mii àndoon naa ci ak ministre de l'intérieur ñu taxaw leen dem seeti xalif bi ah lépp lu état war enquête bi tey mi ngi dem am na ci ñoo xam ne ñi ngi leen di déglu loolu wane na ne quand même état bi ndimbal yi ñu warloo woon ak eh, ñi ñàkk seeni doom tamit ñu ngi war na ne ne ko ci loolu ñu naan ci tubaab psychosocial ñu ngi leen di taxaw pour que également waaye li ci gën a am solo mooy ñu président jol na ci ay décisions comme ni nga ko waxee ministre bi wàcc na teewul également ñi ngi continuer liggéey bi pour que président joxe na ndigal tey inspection générale d'État ñi ngi def audit système de santé bi yépp pour joxe ay recommandations pour que élect effectivement li amoon li amoon Louga bañ a amati mais est-ce que xemes am na dayo bi pour wuutu Abdoulaye Diouf Sarr ah si médecin la au cadre de l'administration la yàgg ci ministère bi ay at moo nekkoon directeur général de la santé donc kooku macha allah. moo tax ñuy wax euh, si say neuf rek. Eh, noonu non elle a l' expérience compétence loolu kenn waxu ko. te tamit am na taxawaay. dañu wax ne dañu wax ne Diouf Sarr koo ko dàq mën a dàqoon waroon mën a dàq Marie Khemesse mi yoroon santé publique. non non loolu moom xam nga gars yi wax la rek mais li gën a am solo mooy nit ki am na confiance su président de la république. ñun ñi ñëpp di ay directeur engagé wu nañ à ses pour que effectivement ñu def liggéey bi te am nañ ci moom confiance am na compétence bi macha allah dernière question bi est-ce que sunu plateau médical bi ba léegi ñu bari ñoo ngi koy euh, décrier euh, di wax ne plateau médical bu Sénégal ba léegi dafa des waaw xam nga lépp moom mënul yem mais li gën a am solo mooy investissement yi ñu fi def gis nga at yi passé ñeenti hôpital ba juróom yu bees la ñu tabax gis nga ba ñu def Touba gis nga ba ñu def Agnam Kédougou Kaffrine ak euh, Touba te ñu ngi waajal beneen également pour inaugurer ko Sédhiou moo lay wanal ne la effectivement taxaw nañ taxawaay bi war président République pour def ay investissement pour que ñu yokk le plateau technique mais yeneen investissement yi tamit def nañ ko ci hôpital yi ci ambulance yi def nañ ay investissement pour recruter ay ay médecins ak ay sages-femmes ak leneen pour gën a système bi gën a am doole. mais est-ce que équipé yi ngay wax. non non yooyu yëpp am na équipement et que mi ngi dox. hôpitaux yi nga xam ne dañu xaw a màggat comme ak Dantec ak yooyu sax gis nga président de la jël décision pour que ñu defaraat ko. d'accord macha allah euh, euh, jërëjëf euh, Lamine Bara Gaye jeex na léegi lan nga bëgg a wax rek ci département Mbacké ñu ñu doog avancé. waaw département bi moom comme li ñuy wax rek man jàpp naa ci fan yi sax dinaa dem pour gën a dajale sama responsable defaat conférence de presse. pour waajal élection législative yi non non man musuma am frustration xam nga man politique moom comme ni gars yi def man de l'État su nekkul woon politique it damay continuer di liggéeyal suma réew. waaye li ma jàpp nag mooy département Mbacké moom pour ñu gañe ko faw ñu responsable yi ñu toog waxtaan ma xam yan stratégie la gars yi bëgg a teg ma wax ci li ma ci xalaat ñu teg une équipe bokkul liggéey bi. loolu jàpp naa ne bu ñu ko defee danañ am ndam waaye politique moom organisation la ak méthode du pëlëx pëlëx rek wër def ay oto yi convoi di wër café fii ëllëg café non un travail d'organisation et de méthode bu ñu war a teg. moyens yu ñëwee ñu xam fan lañ koy teg dem seeti nit ñi naka lañ war a waxee ak ñoom. am na nomination moom léegi Mbacke Mbacke jooytul nomination. xanaa non non loolu ñu ngi xaar xaaral bañ gagné élection yi ñun non ñun joxaguñu li ñu war a jox. ah bon déedéet. jërëjëf euh, Lamine mbokk yi mu nekk responsable politique APR APR Mbacke bokk ci cadre euh, APR yi euh, nekk directeur général bu service national de l' de l' information pour la santé ci ministère bi ñu dénk wàllu wér yaram gi. Euh, mbokk yi moom la ñu invité woon tey ci seen émission pencum réew mi muy émission bu am ci rajo réew mi FM euh, ngeen di sànd ak Abdou Khadre Seck samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h maanaam ñetti waxtu jàpp ñeenti waxtu Mamadou Diawa jàll mu nekkoon ci wàllu machine bi mbokk yi jërë jëf jàmm ak jàmm.